jugal te sant ko nag sëñ bi may na la sak ndax la gaaña bëggoon ne sëriñ bi yow la ko jox kon jugal te ko nag sant ko may na la sak may na bëggoon ne sëriñ bi yow la ko jox billaay jugal te ko nag sëriñ bi may na la sag ndax la gaaña bëggoon ne sëriñ bi yow la ko jox kon jugal te sant ko nag sant ko may na la sag may na la la gaaña bëggoon ne sëriñ bi yow la ko jox billaay ni yow la rob jato jato lu baay kuli cuun yaag sama jégile booba la lay dimbale jugal te sant ko nag sant ko may na la sag may na la la gaaña bëggoon ne sëñ Béthio ba nga dawee ni ko daan topp ku ne cun sa boo leen gannaaw bi ngeen jotee ndigal ci Serigne li waral sama taxawaay fii li ma laaj ginnaaw bu ma sant Serigne Cheikh mu Serigne Saliou di yàgg fi téwér maa ngi am mbégte di wax bokki jullit yi ak bokki taalibe yi yëpp ak càttaakoon yi ñu ngi fii Touba ci liggéey bi nga moom la ñu Serigne Cheikh digal wax ñu digal démb ba tey ngir ñu mën صدقين لما الدوري شنو الدوري كتير داخل تجيك ودلو بمدلو في اللي خبوا في اللي تصعد في هوسو يب سرين شيخ تتبع دام ci ak mbaaxam bëgg moo dimbali rek tax lu yëkkati lu tol ni liggéey bi ci biir kër Serigne Sall yëkkati ko ma am na moom ci ñett moo xam ne ak xéwal yoo xam ne mënuñ ko woon a yaakaare feneen fu dul fii ba tax na maa ngi woo bokki jullit yëpp ci lii ndax njariñ la ndax xéwal la yéene naa ko yëpp maa ngi koy yéene bokki jullit yi bokki taalibe yi rawatina nag danoo am lu xam ne lu jombe la liggéey bii ñu ñuy delloo ci biir kër Serigne Saliou te nga xam ne ñun liggéeyul Serigne Saliou mooy mooy sunu adduna mooy sunu mooy moom rek moo ñu tax doon sunu borom sàkk bi kon loolu maa ngi ciy woo adduna bépp tey jii.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 ndax lu mel nii kat daa jafe waaye fii ko fi tàbbi da nga nawaat Serigne Cheikh dañ ko bëggaat nii mu def kër Serigne Saliou bi nii ko nii ko defaraat nga xam ni kees bu ne def na fay bâtiment defaraat ko mooy ki jëkk a bëgg Serigne Saliou Serigne Cheikh ndax lii mu wane moo wane ni moom day bàyyam ba kenn gën ko koo bëgg. dundal gii a dundal këram bi lii mu ko defaree taar bii ci biir kër gi dund gi kër gi dund nga xamee ni Serigne Saliou kenn du moom fii boo fi duggee di nga yëg ni Serigne Saliou kon njëriñ la loo xam ne murit bu bëgg ngërëmul ngërëm mën nga fee mën nga mën nga ko fee wut la fi woon a ngi fi ba tey Serigne Cheikh yàlla fi yàgg te wér moo ñu dimbali ngërëm ñu rek.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 danañ ko sukkaat defaraat ko euh, ci loolu nag mën na ni liggéey bi yaatu na euh, bi ñu ñëwee léegi euh, gis ñu ni bu liggéey bu ndaw waaye ci barkeb Serigne Saliou liggéey bu bu yomb la ci ñun ndax xol bi ñu demee ndax amuñu lu moom. ndigalam ndax ñu ko digalee rek la sotti ndax moom ñun doonuñu ci dara ay jumtukaayam lañu rek li mu bëgg moom dina am te ci moom lay jóge li ma leen di wax mooy njariñam yi sëriñ bi dimbali nañu woo nañu jox nañu ndigal ndigalul sëriñ Tuubaa nag daa yombatul te moo ne nii képp ku bëgg a jariñu na la ñëw wala waa Sénégal. ah waa Sénégal gépp laa ci woon lii moom day day loo xam ne da nga ko da mënoo su ko ñëwee rek ay ay ay kenn.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 moo ñu ci teg ba fii may wax ak yow Serigne Saliou nag da ko doon li fay mbiri Serigne Touba di dox sa mbir di dox kon day mel ni mbiri may dox ba tey rek bu kenn jàpp bi la mooy dox ba tey waaw ndax daañu dellu xel wala ci yeneen daara laa damay déglu man daal maa ci maa ngi ci déglu maa ngi ci sëriñ bi lu ma digal ci laay Euh, fa ma jëm ak fa ma dul dem man xaw ma bàyyi ma man naa sama bopp Serigne Cheikh lu ma digal daal ma ne ca maa koy sant nag cant boo xam ne maa ngi koy sereel at bi ndax bu ñu bàyyi woon man nañoo réer waaye Serigne bi dimbali leen yërmande rek teg sant nañ ko ci ndax ak sunu yokkute la ak sunu njëriñ liggéey bii. loolu incha allah loolu nag moom màggal gi moom solo bi liggéey bi ci ci ay bis gi rek war naa mën a yegg waaw waaw camion yi tàmbali ñu ñëw suuf saa ngi fi ñu ngi déca di ko sëkk jàpp naa ni fii fii ñaari fan jëm gàttal moom mu fi waaw Serigne Saliou sëñ Béthio Isma Diouf la ko wax ah te xam nga gërëm kon nga fekk ma ndeke booba day jëli ndam kon jógal te sant ko nag eh di may na la sant daawoo na kaa ñu bëggoon eh sëñ bi yow la ko jox billaay ni kasu ataaya ba sax ah ko jëlee di ko jox ba ci xëccoo ak a wax teewul nde yow la ko jox kon jógal te sant ko nag sant ko ndax la gaañu ba doole sëñ bi yow la ko jox billaay ni benn cër la fi woon bañ nga yow la ko jox ani lu waay mën a wax tam jariñ bi fii de la ne jogal te sant ko na sant ko ki may na sant may na la la gaañu ba doole sëñ bi yow la ko jox sëñ bee ci cun ku ñëw jariñ ku ñëwul fooy jariñ ma ne ku ñëw jariñ ku ñëwul fooy jëriñoo ndax njëriñ fi la ne gaa yi ñëw leen ñu jëriñoo jogal desal du ko naan ee bi may na la sax waaw waaw la gaa ñu bëggoon ne sëñ bi yow la sëñ bee ca cant yaa ko wane ah yow de bas nga fi ñu bëggoon ku ne ñu billaay rek jëriñoo kon jogal te sant ko naan sant ko sëñ bi may na la sax may na la la gaa ñu bëggoon ne sëñ yow la ko jox billaay ni cant ak wanewu yàlla rek la ko jox réew mi nag ku fi sant ñu naan da ngay wanewu